fii ci yëngal seet ci kilifa mag ñëpp ràññee ko fii ci yëngal ñu koo xam ne taxaw ci soxla yi askan wi la muy Serigne Bessa Ndiaye loolu jaas Serigne Bessa Ndiaye dañ leen laa gis dañ leen laa dégg ñu bàyyi la nuyoo wasalaatu wasalaamu ala rasulillah Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu bu baax di asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa site bi nga xam ne mooy Tawfekh macha allah ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ndokkee lu bëree bëri waaye di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa àdduna bi yëpp ñu ngi lay kenn ku si nekk ak sa tur ak sa jëmm kenn ku si nekk ñu ngi lay fekk fi nga toog ne asalaamaaleykum wa rahmatullah te ñu ngi baalu àq ñëpp euh, bépp doomu aadama ñu ngi lay baalu àq si événement yi nga xam ne moom la ñu bàyyeekoo muy tabaski bi ñoo ngi leen di baalu àq te leen baalu àq. wax kenn ku si nekk rek foo toog ñoo ngi la fay fekk di sukk ak suñu om di la wax ne baal ñu àq ñu nit baal nañ la àq macha allah gannaaw loolu ñoo ngi nuyu bu baax euh, di ziara kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi bàyyeekoo bu yàggu di ñaan yàlla xara leen aljana yàlla tas ñu seen barke ñoom ñëpp macha allah gannaaw loolu ñu ngi ñaan yàlla mbas mi nga xam ne moo nekk fii ci senegal ak si àdduna bi yàlla na ko fi yàlla jëlee ci anam bu mu gën a gaawee ak ci anam bi mu gën a rafetee. ñu dénk mbokk taalibe yi ak mbokk julli ñëpp kenn ku si nekk rek ñu uh, wéyee ndigal yi nga xam ne moom la président Macky Sall joxe ñuy takk masque yi tey setal loxo yi aussi di maye distance loolu dina ci baax tey aaru daal macha allah ñu ngi leen di ziyaara bu baax den ndokkeel waaw Cheikh Issa Ndiaye benn taalibe la rek boo xam ne ab ndongo daara la waa di yëngatu ci lislaam lu gën a bari di jàngale tey jàng nag macha allah ñu ngi jàngale waaye ñu ngi jàng di wër si àddina bi fu bari di dox di lijjanti xam-xam di ko wër ba léegi ndaxte tooguñu mhm. ndaw la loo xam ne daal mu ngi fi yëmbal di nekk Nord Foire di nekk ci yenn bërëb yi fasanti waaye nag dox bi yëpp dara warule ko loolu dimbale jaamu yàlla yi ak ñu di ñu sàkku ndimbal ci jaamu yàlla yi. Mhm. waaw alhamdulilah listixaara dañu si yëngatu lu baax ndaxte duñ toog bis te sant ñu ko lu mat ay personnes yu bari yoo xam ne lañ ñu koy sant ba nii nii nii rek am na kilifa gu mag goo xam ne woo ma sànq di ma listixaar loo waaw listixaar dañ si yëngatu bu baax listixaar nag mbir la moo xam ne mu am am solo la ndax nit ki lépp lu muy dugg rek war naa xool mbir ma maanaam ni muy ni mu ciy duggee ak fu muy mujj ak bu ci duggee ba xam dana ci am résultat wala du ci am résultat wala bu ci duggee ndax dana ci am ngeneel wala du ci am ngeneel wala ndax dana ci am rëccu wala du ci am rëccu bëri nag koo xam ne dafa rëccu maanaam ba muy dugg ci mbir ma daf koo lis xaarut wala daf koo seetul loolu ma waral bu duggee ba si biir rek ma am ci ay rëccu rëccu yu bëree bëri bëri ndaxte gis nañ ko si ñu bëree bëri ñoo xam ne ba ñuy dugg ci mbir dañ leen waxoon ne def leen ci listixaar defuñ ko ci ñu dëgër bopp bañ jógee si mbir mi dañoo dem ba si biir rek am si ay rëccute yu bëree bëri listixaar mbir la moo xam ne yonent bi sallallahu alayhi daf ko daan def saaba yi dañ ko daan def mag ñu baax ñu dañ ko daan def ba léegi nag dañ ko daan defee mu ngi fi ba léegi da ngay jàpp ba sell julli say rakka tari li nga war a tari daal di tëdd boo tëddee ñu ilham la wax la wala ñu wan la loolu nag ba léegi mu ngi fi am na ñu ko man am na nag ñu ko mënul léegi léeg nag ngay listixaarloo nit mu tëdd nelaw ba bët set wax ko lu wax la lu ko neex loolu kooku moom listixaarut daway naxaate rek waaw listixaar moom ña ko daan def ñoo ngi koy def ba léegi ña man ñoo ngi koy man ba léegi ña def lu wér ba tey ñoo ngi koy def te mbir la ma xam ne moom la lislaam nangu moom la diine nangu daal te mooy sunna waaw alhamdulilahi rabbil alamina wàllu néew kàttan si jamono bii dafa bëri lool sax néew kàttan bu njëkk nan la ñan lañ ko xamee woon mooy mag ñi waaye léegi ndaw ñi sax dañoo commencé néew kàttan léegi dafa mel ni sax mag ñi ñoo te ne ndaw ñi boo xoolee leen feebar dana koy waral maanaam jimbo yi ñuy lekk ak boisson yi naan day waral néew kàttan ci lu bëree bëri bëri bëri léeg-léeg am na ñoo xam ne nag am foo mooy tax maanaam ñu dem ba am problème kàttan léegi am na ñoo xam ne dañuy dem ba mage am problème kàttan am na ñoo xam ne nag dara du leen daal waaye dañuy seesee am néew kattan am na ñoo xam ne sax dañ koy juddewaale léegi nag yooyu yëpp nag am na loo xam ne moo koy saafara yoo xam ne yàlla may nañu ci ay xam-xam yu fasantikoo yii ci alxuraan la yi nekk ci li nga xam ne mooy ay reen yi nekk loo xam ne ay xob la yoo xam ne suñ ko composé jox la ko boo ko jëfandikoo yee allah rabi di nga sant yàlla su fekkee ne da ngaa néew kattan ba booy sëyi maam da ngay gaaw a daanu wala doo am sax cinq minutes daanu maanaam am nañ ci produit yoo xam ne soo ko defee rek boo ko jëfandikoo yàlla mën na laa dimbali mën ngaa sëy lu yàgg boo daan sëy benn yoon. di nga sëy ñetti yoon wala nga sëy ñaari yoon ci anam boo ko bëggee rek incha allah wala yeneen néew kattan maanaam rab da koy joxe yenn saa yi rab da koy joxe rab man na laa dugub boo demee ba war a sëy rek ba sentir sëy rek boo demee ba war a sëy nga sentir maanaam sa kattan li daal di wàcc loolu rab da koy def léeg-léeg ku jigéen ki nga xam ne moom nga nekk di mën naa am rab su amee rab boo boo amee kattan loo am am kattan boo sëy ak moom ne da gaaw daanu. loolu nañ si loolu dañ koy faj dañ koy fajee si benn côté maanaam ci côté am na loo xam ne dañ koy suuroo su fekkee ne côté rab la dañ koy suuroo rek mu dañ su dañee si waa mën ngaa sant yàlla su fekkee ne euh, sa man yu dafa oyof man yu dafa oyof lool ba tey day waral nit ki buy sëy day gaaw daanu te du yëg bànneex léegi man yu bu oyofee am na loo xam ne moom lañ lay jox soo ko defee rek man yu bi da nga delluwaat fa mu nekkoon su waa kàttan ni dana ñëw aussi maanaam lépp loo bëgg ci say di ko mën a am waaye mmh. wàllu mmh. mmh. dëgg la kay. waaw loolu moom loolu moom dëgg la surtout jamono bi ñu toll sax dafa gën a bari liggéeyante bi bëri na soxorante bi bëri na lool lool lool te dara waru ko dara warul loolu lu kiñaan kiñaan rek moo wara lool ndax dangay gis ne diw am na nangam te yow amoo ko. te diw la mu am yàlla moo ko ko may li ko yàlla may nag yow nga bëgg a taxaw ne li ko yàlla may du am ngay jéem say pexe nag topp sëriñ su bon si rek ak njabarkat yi ñi nga xam ne ay féticheurs lañ ak defkat yi lu bon di liggéey jaamu aadama yu bëri bëri na koo xam nekkoon si bërëb dafa liggéey liggéey ba am solo mu xëy rek ñu dàq ko dara warula ko loolu dañ koo liggéey di ko xabtal ba mu génn fa man gis naa loolu am na ñoo xam ne dañoo nekkoon si entreprise yu am doole di liggéey liggéey am solo. waaye liggéey nit boo xam ne moo ko def ba mu génn foofa dégg nga loolu am na aussi léeg nga gis koo xam ne dafa dof wala mu nekk si mbedd mi di wëreelu wala muy dugg si yu moota dugg fekk ne dañ koo njabar wala ñu wala ñu liggéey ko loolu am na léeg nga gis koo xam ne maanaam du toog maanaam fu mu toll rek moo ngi dox dama ko dikk te du dox farata loolu liggéey da koy def léeg nga gis koo xam ne maanaam dañ koy jox liggéey bu baax waaye bu demee ba toog si bureau war a liggéey rek naa day nelaw wala mu bàyyi fi liggéey bi dem seeti leneen loolu it ba tey njabar da ngay def njabar daal bu la toppee dana dem ba yàqal lépp lu la waroon a defaral dala ko yàqal léegi nag loolu képp ko mu dal su la dalee boo ñëwee fii mën nañ koo dindi ci alxuraan waaye mën nañ koo dindi ci leneen loo nekkul alxuraan te nekk loo xam ne ay ñaari fan la si toogaay bi mën nañu la koo dindi nga dem sa waaw loolu lu wér la liggéey moo am na. waaye mm-hmm. képp kuy weddi liggéey rek dañ laa liggéeyaliku naa laa liggéeyugut man gis naa koo xam ne dañ ko liggéey liggéey ko sëf ko sëfa sëfa sëf ba heure bu xëyee bu waree liggéey day xëy nelaw di nelaw ba une mu door a yeewu léegi heure ba mu waroon a xëy heure boobu bu paasee rek day wér bët bu set maanaam heure boobu bu jotee day feebar heure bi nga xam ne moom la war a liggéey bu paasee mu wér te xam nga loolu nit a ko def te gannaaw ba nga xëy liggéey bi bi mu dañee kaka defoon dafa feebar. naa lu may dénk doomu aadama yi mooy nañ def nañ bàyyi def lu bon def lu bon amul benn njëriñ liggéeyante amul njariñ kenn ku si nekk lu sa morom am na nga ko ko yéene te xam ne yàlla moo ko jox waaw nit ñi nañ yéeneente jàmm tey bëggante te soppante te yàlla tax ndax di iñaan amul benn njëriñ iñaan mooy loo xam ne mooy yàlla gu amul bànneex la booy sàcc di nga am bànneex booy naan sàngara di nga am bànneex leneen looy def ci lu bon boo koy def di nga am bànneex waaye kiñaan boo koy def doo am bànneex ca la ngay def te ki ngay kiñaane dina yokk yow ñu lay bindal bàkkaar doon daal iñaan ak soxor mooy tax nit di dem si sëriñ di liggéey ne liggéeyal ma diw liggéeyal ma diw léeg-léeg nga gis ko si wàllu jigéen ñi nga xam ne dañuy wujjante liggéeyante ñoom neen ba nga xam ne sa euh, sa jëkkër bu ayee sa wujj bi du mën dara bu demee si keek mën dara loolu liggéeyante la loolu lan moo ko fi jar nañ bàyyi liggéeyante bi dañuy bàyyi soxorante bi dañuy nekk ay jullit ndax da jullit day def yëfi jullit waaw alhamdulilah rabbil alamin wàllum commerce moom dafa nekk mbir moo xam ne dañ ci yëngatu lu bëree bari na te am nañ si ay xarit ñii di tukki dem fu ne si àdduna bi di jël ay bagages ñii dem bay Siin ñii dem bay Dubaay dafa jël ay bagages ñoo xam ne jëflante nañu ak ñoom si wàllu ñaan ñaan gi nag ñaan yàlla la ndax nit ki yàlla rek ngay ñaan yàlla barkeel ay mbiram nekk ne ñun ñoom man mënuñ dara ndax ay jaam yàlla lañ waaye yàlla boo ko ñaanee rek mu may la am nañ si ay mbir yoo xam ne yu kéemtaane la képp kuy liggéey di ko def maam ngay commerce di ko def foo toll maam sa place dana bëri nit te dana bëri njarte te amatul benn bagage boo xam ne di nga ko bàyyi muy lamb déedéet boo ko yoree daal lépp loo xam ne yaa ngi koy laal yaa ngi koy jaay lu mu mën a doon nit ñi dañ la wutal si dañ ko jënd te dana am barke. te commerce mbir la moo xam ne képp ko ci nekk it te di ko sellal bu asaka jotee nga génne asaka nga ciy saraxe te yàlla tax yàlla dana yokk maanaam sa sa njaay mi yàlla dana ko barkeel waaye aussi dana ko yokk waaye am nañ si loo xam ne lu doy la am nañ si loo ndomba la. soo ko takkee moom doo wéet mukk sa place du wéet mukk ku ñëw dana jënd doo waxante mukk ku waxaale rek dana jënd am nañ si loo xam ne it maanaam jaaro lay doon am na si loo xam ne lam lay doon am na loo xam ne seen lay doon waaye soo ko laalee si commerce di nga am yokkute di nga mën a dem fu nekk bale si jaaro yi am na si loo xam ne wàllu business la koo xam ne day yëngatu si wàllu business jënd ak jaay li jaay ay terrain wala nga jaay ay oto wala nga jaay yeneen yoo xam ne da koy jaay suba boo ko takkee yàlla mën na la dimbale maanaam njaay mi dana yomb aussi nañu nit ñi dañ la wutal si aussi jaaro la yoo xam ne soo ko takkee dégg nga lépp loo am si am-am mooy xaalis dana sax sa loxo dana sax sa loxo yi te dina taxaw te du yàqu waaw wàllum commerce daal am nañu si mbir yoo xam ne ñi ngi si jëflante rek ñoom ñoo ko mën a xam ñi nga xam ne jëflante ñoom si wàllu commerce ñoom suñu gisee dañ xam ndax dëgg la wala du dëgg. Hmm. dëgg la waaw alhamdulilah wàllu kayit am nañ si ay mbir yu doy waar. loo xam ne képp koo xam ne da ngay lijjanti kayit moo xam nga nekk si dëkk bi waa nga nekk si bëti dëkk bi wala foo mën a nekk di lijjanti ay kayit am loo xam boo ko jëfandikoo rek yàlla daan la yombalal kayit yi léegi mën nañ la si ñaanal si wàllu kurus aussi mën nañ la si ñaanal si si alxuraan si yaasin mën nañ fee jaar ñaanal ñaanal la fa kayit yu yomb donc mën nañ laa jox sangat boo xam ne da sangoo ñaar fukki fan ak benn su fekkee da wut kayit foo dugg déposé kayit incha allah kayit kenn du ko resité am na it si wàllu sarax yoo xam ne suñ la ko génnelee wala nga génneel ko sa bopp wala nga wax ki taq si yow koo xam ne sa deret la mu génneel la ko su doo ko génnelee kayit boo mën a lijjanti yàlla dana si def tawféex su fekkee da nga daan dugal kayit ñu koy résité am na loo xam ne moom ngay def ba boole ko ay bant bale nga sangoo ko boo ko sangoo juróom-ñaari fan boo neex ngi dem déposé boo déposé ñu may la kenn du la récité sa àdduna su fekkee da ngaa nekk fii di lijjanti yeneen kayit mu dëgër nekk fii Sénégal wala furul Sénégal wala ngay def ay examen wala boo defee examen doo am dégg nga am na si loo xam ne soo ko defee incha allah yàlla dana la dimbale bu baax a baax a baax loolu nag luñ ko defee day boole dañ koy booleek bopp tan xam nga tan moom lépp xam-xam rek si tan la si tan la nekk te tan moom buur la xam boobu si tan la ñuy jël bopp tan lañ koy defee jox la ko nga takk ko incha allah examen boo def kenn mënu laa teree jël maanaam pay wala dese waaye doo rate moom fekkee këyit la doo ci raté su fekkee ne place booy xëccoo la it pour bëgg faa toog place boobu yàlla dana la may ba nga toog fa incha allah rabbi loolu am na waaw alhamdulilahi rabbi alamin ñu ngi leen di ziara bu baax di leen ndokkeel lu bëri bëri di wax ne ñoo ngi nuyu si euh, xarit yëpp yu nekk fii ak yu nekk si àdduna bi di wax ne képp koo xam ne gis na si ne vidéo rek te gëjoon ñoo gis ak ñu woo su fekkee am na lu ñu la waroon a jox te jotagoo si ba tey ñu xool na la def ba jot si léeg loolu dafay am am na ñoo xam ne nga yónnee leen ay leetar leetar yi du yegg wala nga yónnee leen ay ñaan ñaan yi du yegg wala nga am seen contact dem ba si nga ñàkk seen contact ñu lay xool si àdduna bi képp koo gis seen vidéo bi rek mën nga ñoo contacter bu ko defee dañ digaale woon yow ñu matal ko incha allah bi mu ngi baalu àq ñëpp di ziar ñëpp macha allah di wax ne réew mi di Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm suñu président bi yàlla na ko yàlla defal jàmm jabaram yàlla ko yàlla defal jàmm may ko wér may ko bu baax a baax macha allah.